asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo safoo di seetaan Ladoum TV nuyu nañ leen ama ci mbégte ak cawarte gu rëy rëy di leen indil li nga xamante ni fan yëpp def naa ñu doon waxtaane bu foret 2022 foret 2022 di foire du regroupement des éleveurs de yaa ngi dugg gaa yaa ngi ñëw mu mel ni nag ñu ngi ci tàmbalik foire bi du leen lu dul ñëw ak yéen ñu daal di dugg directement ci entrée xar booy rëbbi rëbbi. si si rek rek yombul de. six moutons six ah. cinq. cinq. Bale ñu daagu grand dañu ko waaye kii mooy Alaaji Moussa yi bokk ci ki nga xamante ne mooy membre reb yi gën a terrible mais grand xar yi ñëw gën si nii di ko présenté bokk waaw ndax bu rëy lañ am waaw foire moom moom daa mel ni neex na ba doon waaw neex na ba doon bu yemoon taw. waaye ay soo laaj ba sëy waaw ci kanam. waaw léegi léegi. waa kii di jóg. ah ma ñëw. Ela

mooy secrétaire général ren ah Serigne. yéen a ngi waajal foire day waaw foire boo xam ne nii incha allah dañ ko fas yéene commencé bisimilah rahmaani rahiim léegi alhamdulilah ibrahima mu ngi foire boo xam ne day toj incha allah. waaw mu nekk seen quatrième édition. d'accord ah, nag loo xamante ne seen bàyyi bi maanaam ni ngeen ko waajalee jiite bi yàqu mais lan mooy seen secret waaw suñu secret mooy consensus mooy nekk benn. ngeen ne li fi ñuy xam ne ñu fi liggéey lii su rek nekkoon benn at durée bi nga xam ne moom ngeen ko def du mën a nekk mais yàlla def na nag rek moom benn bopp suñuy xëccee rek ñëpp dañuy daw ànd ak ñoom loolu moo tax loolu. aywa xoolal bàyyi ba wër box yi xool gars yi wan gars yi entrée bi dinañ amaat yeneen jotaay incha allah. yal na yàlla jàpp na lépp kontaan nañ ci yéen itam bu baax a baax a baax. aywa ñu ngi la gën a kontaan gis naa la aywa mbokk téléspectateurs yi loolu ñamali la rek ci li nga xamante ne moom moo leen di xaar Ladoum TV dina leen couvriral événement bi ba mu jël Forêt 2022 ñun ak yéen ñoo koy dundandoo lépp loo xamante ne xew na fi ngeen koy am en direct incha allah ci mën a doon rek dañ ngeen koy dëkkee loolu lañ leen jëlaloon ci li nga xamante ne moom mooy entrée xar yi di leen jox daje incha allah ba ëllëg jàmm jërë ngeen jëf